loolu nekk lu xam ne ni lu am solo la kon nag fa ala al muslimi an yastaqbila hada alchahra bilfaraxi walazimati alsaadiqa ala siyaamihi wa qiyaamihi walmubaadara ila tawba ila tawbati nasuuxa min saairi dunub wa sayi'aat kon loolu nekk na nag lu xam ne moom yow jullit bi war ci profitoo ci loolu ci weer bi ci wèr bu mag bi nga xamné moy wèru mbékté bi nga profito ci and ak dogu ko mat sëkk nak ci jema taxawé ay guddem di ko jaamu yalla di tuub say bakar tuub go xamné gu dogu la ak lepp lu ñaaw lo xamné defon nga ko nga koy tuub ndax borom bi subhanahu wa taala mu ngi taxaw talal ay lo xamnaan kuy tuub ma baal ko kuy jéggalu ma jéggal ko yalla nañu yalla boole ci ñi nga xam da leen koy yombalal yi mën di taxaw guddi yont bi nee na képp ko xam ne nii woor nga weeru koor imaanan ci saaban nga def ko woor ko rafetal ko rafetal sa ngëm ba pare jaamu naafila yi nga war a def nga def ko nee na kooku yàlla jéggal na la say bàkkaar yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne yàlla da leen di jéggal seeni bàkkaar bi xurmati xayril mursalin kon nag fa saariu ila taat wa bi xasri sayiat ويجتني بها واجتنا بها واعلموا ان المقصود من صوم هذا تقوى الله باتباع اوامره واجتناب نواهيه وليس المقصود ترك الطعام والشراب نحن خامني ويرو كور بو واخي لي نيتي نامو دون رك باي ليك اك نان waye da nga moytu lepp lu war nga lepp lu bon lo xam ne daan nga ko def rek da nga ko wara bayyi te nga xam ne hadaf bi nga xam ne moom la borom bi teg pour weeru koor mooy a taqwa parce que dafa ne woon kat faratal naa ci yéen koor ni ma ko farataale woon ci xeet yi nga xam ne dañoo weesoon waaye la mu tëjee aay bi mooy tattaquun kon nag dëgg dëgg dëgg dëgg njëriñu koor mooy nga doolee ko am taqwa taqwa googu nag boo ko amee da nga war a ak am taqwa ci koor rek koor paase nga daal di sànni taqwa fële su boobaa doo ci amati ben njëriñ waalam ayuha al abdul alladi yarju rahmatallah annaka ida adrakta ramadan فلعلك لا تتمه فضلا أن تبلغ العيد أو رمضان آخر فاجتهد على نفسك في فعل الخيرات وتذكر كم كان لنا من الأحبة ممن كان يعيش بيننا وهو الآن في قبره وحيدا موسدا تحت التراب ليس له رفيق إلا عمله فاعمل ليوم تكون misli مثل هذا الحال ما دام في العمر إمهال مبقي يوم nga xamne yalla dogal na nga nek di yaakar yermande yalla buwe wéru koor ñëwé ci yow gor gorlu profito ndax muna amkat am kat wér wi doko motali ñaata nga tambalé won ci arrêté nañ faatu nañu bu yàgg ñaata ñoo umoon ndoor ak yow balaa ñuy wax ne weer wi feeñ na ñi julli fekk na faatu nañu dem nañ bu yàgg am na ñoo xam ne fukki fan yu njëkk yi la ñuy woor yàlla jël seen roox am na ñoo xam ne ñaar fukki fan yi la ñuy woor yàlla jël seen roox am na ñoo xam ne nag dinañ woor ba ci ñaar fukkeel fan ak juróom-ñett yàlla jël seen roox yow na xamoo ci ban nga ci diggante boobu kon profitool profitool ci diggante boobu ndax amna ko xamne ne mom yena ko tambale won do tay mu nga yo suuf mu ngi ci lana bambelam ñi koy dëggate di jalla est ce yow est ce yow wóor na la ne la yow di nga jeexal kor wala do ko jeexal kon nak nañ profito kenn ku nek lo ci mën ci jaamu yalla ak def lu bax ak dimbalate nga diko def fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kor na ko waxe dafa am luy waral tax muy weer bu feeñ weer bu feeñ ca mujjanteelu shahru shaaban gis nga loolu nag wute bu rëy am na ci wute bu xam ne fi mu ne ëlëm na jullit yi mondo lislaam ndax di nga gis ñu xam ne dinañ woor tey ñi suba ñeneen woor ginnaaw suba te ñun ñep ñu ne yalla la sakku sàkku benn weer bi lañu nekk lima ci jaaxal nak moy buñ démé ba tabaski ñu ne tey la mu arafat amul kenn ko xamne ni da nga weerante ni tay moy arafat amul kenn ko xamne di nga wax ne suba moy sama arafat wala gannaaw suba waye ñep dañuy ñew tënku ca bes ba nga xamne mom la makkatul mukarrama japp ne moy arafat ñun ñep ñu tënku ca magal arafat gogo wor ko waye bu arafat ga weso rek ñu daal di tàqale ko waat kenn ku nekk jëlal sa dat mbokk yi nañuy seetaan bu baax yàlla subhaanahu wa dafa waxoon ne bu weer bi feeñee wala yonent bi sallallahu alayhi waxoon ci ci xadis ne suumo li ru'yatihi wa aftaro li ru'yatihi fa in gumma aleykum fakmilul iddata thalathina shahr thalathina uh, yawman nee na woon weer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la moo ci gën a bari mu na nañu woor bu ñu gisee weer bi bu ñu woree bu ñu gisee weer bi tamit nañu woore bu fekkee dafa lënt ci ñun nag mu am nuage wala muy taw wala yu demee noonu ba mënuñoo gis weer bi te amuñ benn jumtuwaay bu ñu ko gisee nag su boobaa lan la ñu war a def mooy dañuy war a mottali suumu li ru'yatihi woor leen ngir gis ko gis googu nag tey dafa am ay jàngat yu ci nekk pourtant gis googu dey boo xoolee jamono bi ñu toll doonul ne lépp lu ñuy gis dañ naan bët rek moo koy gis ndax ñun ñëpp tey nangu nañ ne korona coronavirus am na kenn ku ne yaa ngi koy daw kenn ku ne yaa ngi koy moytu kenn ku ne yaa ngi koy dëggal kenn ku ne boo xëyee ba ngoon yaa ngi déglu xibaar yi lañ la ciy wax nga di ko jàpp pourtant corona boobu nga xam ne moom la ñu gëm tey ji di ko daw daw bu metti boobu ak di ko bàyyi xel bàyyi xel bu metti boobu kenn mënu la wax ne teg naa ko bët sa bët mënu koo gis waaye dafa am lu xam ne jumtuwaay boo xam ne moom la jëfandikoo ba gis ko nee la am na jumtuwaay boobu nag jumtuwaay boobu nag yamul ci xool ay jàngoro kese waaye dafa dem ba ci ilmul falak ñu koy jëfandikoo mën a xool bu asamaan si lëndëmee lu mu lëndëm lëndëm bu ñu jëlee loolu xoolee ko mën nañ ci gis bu jant bi feeñee bu weer bi feeñee mën nañ ko cee gis loolu moo tax yenn fuqaha yi nag ñoom nangu nañ ne nangu nañ d'accord nañ ci jumtuwaay boobu ñu di ko xoolee weer bi ba ñoom ne saa boo xamee ne waa jumtuwaay boobu ñoom gis nañu ne gis nañu ko rek su boobaa lislaam maye na ñun ñépp ñu woor waaw bu fekkente ne dañoo nangu lool ci suñu wàllu ja ci suñu walu fever ci suñu walu aduna te suñu walu diina duñ ko ci nangu kon su boba problème amna gis nga bo démé ci walu médecine amna na benn téere bu xamné mu ngi tuddu limada aslamna bo démé fofu di nga fekk ay ngonk ay kek ay boromi xam-xam ay professeur kenn ku nekk di wax lan moko duggal ci islam lan mo tax mu tuub amna borom xam-xam mom dafa né mom liko tublo moy ben hadith bo xam yunus sallallahu alaihi wasallam wa da ci wax mu xaj bu maré ci sa bol bala nga ci defa dara ne nang ko raxas sept fois raxas ko juróom ñaar yoon ci suf. juróom ñaar yoon nak nang ci def ben bo dang bolé ak souf bombalé ko ak souf legi yalla dogal bimu gisé hadith bo ba waw comment lutax Muhammad wax li lii daal il faut ma xool ko xam nga tubaab dafa di ko xam ne moom bu gisee rek boo déggee rek il faut mu il mu am preuve te comme moom médecin la mu daal di jël benn bool def ci dara jox xaj bi xaj bi lekk lekk ba pare mu jël bool bi yóbbu teg ci laboratoire am bi mu demee mu raxas bool bi ba mu set xool gis ci ay microbe yu baree bare ni nga xam ne ni la ñu gisee coronavirus bi mu gis ci ay microbe yu bare bare bare bare bare bëri mu ne ok léegi Mouhamed neen lañ ci def suuf xaaral ma essayé daal di demaat jël bool bi raxas ko six fois ak septième bi mu mu mu bombaale ko ak suuf ba pare daa di set seetli ñëw tegaat ci laboratoire bi bi mu tegee jël microscope bi li nga xam ne moom lay xoolee micro bi ba mu xoolee gisatu ci benn micro boobu rek la daanu mu ne dëgg dëgg dëgg Muhammad mii du nitu kese kii daal li mu wax dëgg la lim ne yonent bi yàlla la yàlla moo ko yónni ndax xam-xam bi ba mu koy génnee jamono yooya médecine tolluwul woon fii amuloon loo xam ne mën na ko xoolee ba gis ay microbe kon nag buñ jamono ñëwee ba dëggal ko ñun ñi nga xam ne ci li la ñuy liggéey ñu gis la mu waxoon mu nekk exact kon kii daraa ngi ci moom kii yàlla moo ko yónni